waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maratan ukhra dafa mel ni gis nga sa pays n'est pas sérieux ya. courant moo coupé woon nii de donc toog ba 4 heures du matin si jamonoy tàngaay di coupé courant nga xam ne kon dëkk bi vraiment ça craint donc mais on était ci lu am solo ci eh, wane ni dañu waxoon ni al masih wala bokk eh, al mahdi va régner sur la terre il va régner depuis jérusalem Dajjal va tenter d'asseoir un faux règne à partir de Jérusalem moom tamit euh, muy ñaar euh, Isa ibn Mariam va tuer le Dajjal Nous avons wax Babou Loud jusqu'à présent à Jérusalem donc Jérusalem est centrale surtout le débat eschatologique apocalyptique dans l'islam donc nous euh, ngi fait ça. on était sur le faux messie Dajjal Wow, Dajal, il faut nous comprendre y a trois niveaux euh, de compréhension de Dajal est un est un est un système d'abord un c'est un état une fréquence une résonance bo embraser tout le monde ci

mu koy jinne ki est-ce que du dajaal ko mu ngi ko nag am na benn nit boo war a incarné dajaal daf ko kese du question de njuub du question il faut nous enseigner que ce sera un garçon un homme ku euh, pour dire que donc dajaal kon c'est un système le système dajaal est un système bi nga xam ne qui est aux antipodes à l'inverse de diine ak li yàlla bëgg muy ben. ce sera une résonance waxna tout ce qui est l'univers dans son ensemble doit être compris en matière de vibration de fréquence et de résonance madame Lip ay ondes la lepp c'est de l'énergie en fait euh, buy déployé état d'esprit la conception les états manam Ahwal, Hali, yi xaal euh, voilà euh, mbir la affaire ben beut bi papi boumi oui c'est vrai c'est une vision étriquée de la réalité. Elle ne verra pas la réalité. La réalité, euh, il faut nit ki am ñaari voient, voire pour soo ko la réalité ku am benn ne voit euh, qu'une partie de la réalité il y a kamal système c'est pas un système kamal qui prend tout en charge al kamal yi nag mu ngi si face sànq maa ngi koy ak Amadou c'est un Amadou c'est un très grand philosophe bi xam ñuy waxtaan sur la réalité philosophique euh, di dugg ba dugg ci euh, gis-gisu ñoom ay ñoom Freud ak gars donc euh, pour dire que et surtout Sartre Albert Sartre parce qu'on parlait d'existentialisme Albert Sartre dafa dem sax ba nier l'essentiel jàpp ne l'existentialisme moo ko jiitu elle précède l'essence donc l'existence moo gën moo gën a l'homme n'est que la la somme de ses actes donc c'est une vision étriquée de la réalité qui est le ndax euh, Nous martaba le degré l'existence et lan l'essence euh, ku tu n'as pas appréhendé l'objet en fait l'objet gisuloo donc gisoo l'objet donc l'être humain ne peut pas être perçu comme la somme de ses existences non non donc exemple c'est pour dire que euh, le système de un système Euh, lenn kese la moom lenn la la jël maanaam elle n'est pas kamal amul kamal it par rapport système bu të tëggu ci yàlla nga xam ne dafa jël l'alpha et l'oméga de l'être humain dafa jël léppam dafa jël zahiram jël baatinam jël li nga xam ne melo la euh, xaal la biir la ak li nga xam ne jëmm la ak jëf maanaam biti maanaam dafa boole biti geeg biir gi loolu mooy kamal itu gi donc euh, dajjaal nag len sam dina rek ni ñeent fukki fan lii nag Euh, je vous demande un peu de tension pour ñu déglu ko gars yi bëri ñu ngi koy firi li firi c'est pas vrai li firi du loolu premier jour am dafa nar mel ni at équivalence su at la hmm? yow mu yow moom bu njëkk bi kasara muy benn ñaareelu bësam équivalence su weer la ñetteelu bësam semaine la à part ñeenteelu bësam ba quarantième bësam mooy équivalent su jour sur jour lan lay tekki lan lay c'est des échelles temporelles totalement différentes dañ ko dégg ko comprendre manam le existe réellement en tant que djem. mais jëmmam yegg sur une dimension bi On ne on le verra pas sur une dimension bi donc elle travaille sur ses flux avec des résonances yi xam fenen la nek instant mu ngi mu ngi ñëw exceegul sur cette terre ñu wax la terre du milieu donc euh, suñu benn bés amee équivalence su at bërëb boobu dëkk boobu xam nañ ko tasawuf en tout cas xam nañ ñu mu tudd euh, fi nga xam ne suñu équivalence su bés fii mooy suñu suñu weer fii mooy benn bés foofu xam nañ tamit bërëb boobu fan la nekk fi nga xam ne équivalence su semaine la ak benn bés maanaam le rapport 7 1 la ci jour xam nañ tamit foofu fan la Euh, su excel fi nga xam ne seen jour ak jouram benn la comprenez que instant il sera sur cette terre là léegi nag li aal yi wax léegi ne ndax euh, jëmm la si jëmm jëmm jëmm la am na jëmm euh, donte dama wax ne la ñett yi la boole dafa mel ni comme instant bi man su ma nee Cheikh Oumar Diagne tur la mais jëmm ji moo ko caractérisé ba pare fa ay jëf yi xam ne jëf yooyu

la personnalité maanaam nit ki lay yow lay ta manière de voir ta manière de concevoir sa xam-xam sa ay histoire sa ay souvenir sa sa lépp naka lañ koy euh def ko ci benn support parce que lool non moy yow en fait même sa corps yu disparaître bu dee loolu mu ngi ko ne exister mooy ko tu existes donc ñom ñu commencé xalat ci entre réalité virtuelle ak réalité physique bi réalité virtuelle augmentée réalité inclusive euh, comment transférer pourquoi pas sur un robot euh, tous les éléments de ta personnalité qui font que yow yaay yow et que si on parvient à le faire vivre à le mettre en mouvement avec de l'intelligence ça signifie que yow da ngay exister donc yi ñoom ñu pour dire que euh, l'être on peut pas l'aborder en tant que son physique c'est physique bi le support n'est-ce pas Euh, le support bu mu nekk kese waaye euh, support bi am na leen ak leen ak leen li mu boole donc aujourd'hui comprenons que Dajjal euh, sera une personne incarnée suñu kanam kii xam ne moo nar moo nar moo moo toog ci maqaam ndax maqaama la moo toog ci maqaama bi n'est-ce pas Dajjal du benn nit mais am na nit bi xam moo ko nar a incarné maanaam moo nar a yor jumtukaay yi moo nar a yor xam-xam bi moom lañuy jox pouvoir bi moo koy doxal koku noonu mo na moy dajjal koku xale lu góor lay nek ku goor la sera un jeune euh su heure dajjal manam le temps dajjal bu excès suñu temps dina am kenn ki am moo koy incarné en attendant nak système bu ñu système bu dajaal mooy système bi nga xam système boobu nak la bëgg ñu waxtane parce que ñun dañoo dañoo wor yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jamono bi ya une sunna di prophète sallallahu alayhi wasallam yoo xam ne sunnaam yi ba ko bàyyi may ngi fàttaliku goor yalla boobu do wax nan aalama nii al yowma indiraasi sunnati maahid dalal qaidi donc euh, tey jii metti na ma aalama nii al yowma tey am naa mettit am naa jàqare wala boog am naa lu ma metti indiraasi sunnati maahid dalal maanaam ràpp-ràpp yi nga xam ne sunna ki nga xam ne kookoy maahid dalal te kooku mooy ki nga xam ne mooy kiy effacer les range yi te kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sunnaam bi commencé ràpp ci jamono jii metti na ma kooku jamonom Euh, jamono mille neuf cent et quelque la ndax kooku il est décédé en mille neuf cent soixante kon ñun tey tey jii kon sunna Maalik daal kon si ban point ci ban position la nekk on a abandonné la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam sa politique ndax nee naa la système dajaal li ko gën a àndil problème lu ko gën a sonal c'est la réalité politique maanaam ateo dans un régime qui est théocratique maanaam une théocratie islamique comment revenir à l'enseignement et au mode de gouvernance de direction de Seydina Mohamed Tant et gis cité Thierno Souleymane Bal, Abdou Kader c'est bien de les citer mais c'est mieux encore d'appréhender et de reprendre jël seen modèle n'est-ce pas le modèle le modèle politique Bidon pourquoi pas ne pas le mettre en œuvre la sunna économique di prélèvement sur la mo sunu daf ma intéressé lool ndax man sama économie mo gëna nek sama sama mbir eh, donc dañoo bàyyi lépp di bi sallallahu alayhi wasallam donc xol li alcorane bi muy euh alcorane dafa diggé la continuité de l'homme waye ci benn martaba ci benn condition moy condition iman wa'adallahu allahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihati من لا la لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم qablihim n'est-ce pas donc euh, nous allons perpétuer notre civilisation va se perpétuer filek ñu ngi teunku sax ci iman muy ben pourtant nak li wara contrer civilisation li ko nar yak yàq alxaal wax nañu ko nenu la tajidanna ashadda an-nas adawata lallazina amanu alyahudu wallazina ashraku donc lii suratul maida yàlla mu wax naan di nga gis ñi gën a virulent ci ennemis les ennemis les plus virulents les plus dangereux à ceux qui croient ce seront les yahuds ak les mouchriquines yahud nag en tant que ñu war a dund le système inverse bi ma bëgg a wax léegi naa naa si ñëw léegi incha allah yahud ne signifie pas beaucoup de mots yu gars yi firi jamono bi bon lu tax loolu parce que man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayka humul alxuraan andi na ko si maanaa yu bëri bëri surtout maayida daf ko enchaîné sax daf ko enchaîné euh, man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaayka humul kaafiruun fa ulaayka humul zaalimuun fa ulaayka humul faasiquun donc vraiment yéefar lañu ils sont injustes parce que c'est des pervers képp ki xam ne bëggoo attewoo yàlla tëral aujourd'hui ñëpp nous sommes dans des systèmes de complaisance qu'on appelle ñëpp ñu nangu di atté wu leneen lu uteeg lu yàlla tëral ñu gërëm ay atté yoo xam ne ay nit a ko tëral nit yoo xam ne ñoo weddi ouvertement yàlla ñoom yàlla d'accord ñu yàlla doxal àdduna bi yàlla na yam fële ci kaw asamaan te bàyyi ñëw ci kaw suuf donc euh, ay nit yoo xam ne si bëri c'est des francs-maçons yoo xam ne qui ont déclaré faire la guerre à Dieu ñoom Jules ñoom Jules Ferry ñu ngi fii ñoom euh, ils sont nombreux ils sont vraiment nombreux tous les artisans de la troisième république française ils avaient dit clairement et ouvertement que nous sommes en conflit et en guerre contre Dieu Nous, avons les artisans de ce qu'on appelle la république laïque qu'on a tenté d'universaliser jox ne le remet pas en question personne ne remet en question aujourd'hui cette république laïque là euh, pourtant al et wal munafiqat comprenez que nekul mu naa bu goor bek ak bu jigen bi moy naafeq actif bi ak naafeq passif moy naafeq bi xamé euh ne muy influer di joxe ak ki xamé moy ki xamé il est passif c'est lui qui l'aide dans cette entreprise là donc euh, ñaar ni ñep moy l'acteur et le récepteur ki koy théoriser ak ki koy pratiquer ki koy doxal ak ki ko nangu ñi ñep la yalla di wax yalla ñaa dans ces deux principes le masculin le féminin li mom tasawuf ku ni ibn arabi dafa ci liggéey bu rëy rëy la yalla nam ci masculin féminin gars bari on fait un mauvais procès à l'islam ci affaire féminisme ak yi fi tapalé yi mais islam dafa dépasser lolu islam dafa nek en avance par rapport à ça mune ba'dahum min ba'din mune ya'muruna bil munkar gis nga de munafiqiri ñom ñoom dañoo àndandoo ils sont liés ñom ñoo farando ñi ñep ils sont contre l'islam yaamuruna bil munkar la munkar ñoom lañuy lañuy digle maanaam lépp lu yàlla euh, dàq ñoom loolu la ñuy commandé ñoom wa yanhawna anil maaruf dañuy tere lu baax ñoom lu baax lañuy ñuy tere wa yaqbiduuna aydiyahum ba pare dañoo téye dañoo téye euh, seen loxo mu ne nasullah dañoo fàtte yàlla man on a sorti Dieu de tout et ça dans la dans chose public, dans la sphère intellectuelle, dans les. dans partout. Mais soyez wax yàlla ça tu deviens ringard rien qui a rend kii ah, intellectuel rend jàngul donc j'ai bonne des fois devais être dans des conférences au niveau hein, mondial mondial ah, man yàlla lay mais je sais que je dérange les gens moi montréal ça parce que foofu gars yi xaar du wax même dans des conférences fii dans des cercles intellectuels fii euh, so waxee yàlla tu mets mal à l'aise des gens parce que gars yi pour ñoom réel xel dafa dañoo garaaw ñoo gën a garaaw réel donc nasullah fa nasiyahum yàlla dafa leen di fàtte innal munafiqina humul fasiqun yàlla na naafiqi ñoom ay fasiq lañ donc euh, attention sur ces modèles là yoo xam aujourd'hui nous nous sommes en train nous avons trahi